liggéeyub lislaam ci nam gën a rafete ginnaaw loolu waxtaanu tey wi day jokku tey li waxtaan wi ñu mujjoon a seq ak yéen mu jëmoon ci yàquteg jikko yi ci waxtaan wu jëkk ba xaaj bu jëkk bi waxoon nañ ci ay misaal ci luy wane yàquteg jikko yi waxoon it tuddoon it ay tomb ci liñ jàpp ne ay sabab la ca bokk na ci ñu tuddoon ñàkk gu waajur yu baree bari ñàkk a taxawee seeni warigar ci yar nam ware barab yi nga xam ne itam jàngale ak yar mooy seen métier moom lañ féetewoo ñoom it gën giñ gën a jox it te njàng te joxuñu ko yar mu tolloog moom doon nañ ko ci tuddoon nañ ci itam bëgg alal gi nga xam ne fes na lool ba ci la ñuy ñu bari ci lañuy joxe nit wàccuwaay tuddoon nañ ci itam jumtukaay yu xarala yu bees yi nga xam ne mooy jokkale nit ki ak li ci xew ci àdduna jëfandikoo ko jëfandikoo lu wóorut ni mu mën a yàq jikko tuddoon nañ ci itam ak ñàkk ni mu mën a jeexitale ci jikko ba mën ko yàq waxoon nañ it ñàkk teel a ñàkk waajur te ñàkk am ay taxaw yu ko wuutu na mu ware yii ay tomb la yoo xam ne tuddoon nañ ko ci waxtaanu jëkk wa tey jii nag ñuy bëgg a ñëw ci ay tomb yoo xam ne dafa jëm ci ñu bokk seet ni ñuy saafaraa yàqu-yàqu yooyu tomb bi ci njëkk a tudd mooy yar joxaat yitte yar yar ñu jox ko yitte ji nga xam ne moom la yeyoo delluwaat ci njàngaleem lislaam njàngaleem sëriñ bi ni ñu leerale yar ak yitte ji ñu ko jox lislaam dafa jox yitte yar lool def ko muy farata ci diine ni gëm yàlla ak julleek woor joxe ak joxe asaka nekk farata ci jullit noonu la yar njaboot ak ku ne ci kilifteef ku ñu yilif nekkee warugar kon loolu jox yitte la jox na ko yitte ba wane ne nit nu mu mel ci yaram la koy mele bu dee melewu gërëm yar baa koy def ci moom bu dee ab safaan it yar baa def jox na ko yit yitte ba texeeg doomu aadama akuk ñàkk texe mi ngi ko aj ci yar nee nit yàlla da ko bind defal ko mu nekk ku mën a baax mën a mel neneen mën a jub mën a juba di waaye nag ku ñu yar teg ko ci yoon ba defar jikkoom defar bak yar bakkanam ba mu tege ci jub kooku mooy texe waaye safaan bay kooku moom mooy texe di wa nafsimu ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad xaaba man dassaaha kon mi ngi aj texeg nit ak ñàkk texem ci nañ koy yare jox na ko yitte ba tax diine ji mu yoonal lépp lum mu ci santaane day am jeexit ci yarum nit da ko tàmbalee ci pas-pas ba ba ci jaamu yàlla yi ba ci àtte yi muy àtte ngir yar ñiy tooñ ak jëflante yi ni mu ko tërale loolu lépp luy defar jikko ak lu yar nit da cay am moo tax sax yonent bi sallallahu tënk ab liggéeyam ci ne yàlla da ko yabal ngir mu mott li jikko yu rafet yi innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq jox yitte yar ba tax mu yoonal sëy ci diggante ñaari way dencante ngir ñu mën a dimbalante ci yar njaboot ga nga xam ne ñooy jóge ca ñooy juddoo ci seen diggante li lépp ay ba noppi rëdd it aw yoon wu mu teg wane ngir ñu di ca jaar bu ñu dee yare lii lépp kon day wane yitte ju mu ko jox te loolu it la sëriñ bi jëfee jëmmal ko ci doxalinam ba defar ci mbooloo ba meññet ma ñi leen xam ñépp di ko gis di ca jariñu yoon wi lislaam rëdd nag ngir yar kon yi saafara si jëkk daal jàpp nañ ko ne mooy kon ñi nga xam ne ñooy ñi ñi war a jëkk a yar te mooy ñii méngoo mbirum nit ki ci njaalbeenam mu ñaari waajuram ak ñe nekk ñam na ci seen doon kilifteef ci biir kër ñooña taxawee seen warugar ci yar na mu ware te na ko lislaam santaane loolu bokk na ci saafara yu jëkk ndax ci yar lañuy defare ci la ñuy tabaxee jikko lislaam nag yoon wi mu rëdd ngir yar dafa niroole doomu aadama ak gàncax Euh, ni ñuy saytoo gàncax mu wane ne kon ci misaal noonu la ñu war a saytoo nit kon yar gàncax rek noonu mooy yar yi nit ndax li gàncax soxla loolu la nit ki soxla ci dunduk zaahiram dunduk yaramam waaye moom la soxla it ci dunduk ruuxam gàncax dafa soxla juróomi yëf dafa soxla aw jiwu wu ñuy ji ngir mën a sax soxla suuf suñuy ji jiw wa soxla ndox mu koy suuxat soxla ab jant bu koy tàngal soxla itam ngelaw lu muy noy lii lépp gàncax da koy soxla ngir mën a màgg ci loolu la sunu borom di wax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida di waxit ne alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayibatan ka shajaratin tayibatin nasluha thabitun wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xiinin bi isni rabbiha wa yadribu llahu lamsaal linnaasi laallahum yatazakkarun wa masalu kalimatin xabiisatin ka shajaratin xabiisatin tusad min fawqi lardi ma laha min qarir kon ci misaal moomu la misaale nit gàncaxu kon jiwu gàncaxu nit jiwu nit mooy wu góor suuf sañ koy ji mooy wu jigéen uh, bu ko defee lislaam kon bëgg kon jiw woowu ñu tànn ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ku ci am jigéen ju mu yilif ju mu war a joxe su nit dikkee laaj ko ko mu seet diineem ak jikkoom mu doy ko ak ngorom ak kóoluteem ba mat doon kuñ mën a dénk te mën a yor nañ ko jox la muy laaj kon rëdd na jiwu yi nu mu war a mel te mooy waajur wu jigéen waajur wu góor waa wu jigéen it te mooy suuf si ñu war a ji jiw bi wax na ni muy mel yonent bi saa wax na li ñuy seet ci jigéen ba di ko bëgg wax na ko nee ñeenti yëf la euh, alal mbaa ab juddu mbaa taar mbaa diine mu ne yii nag la ca mënta ñàkk te war caa jiitu mooy diine ak jikko ju rafet nee kon na fexe ba koy tànn moom loolu na ca na jiitu ya ca des nag lu ca am baax na waaye lu ca lii moom mooy li ci mënta ñàkk kon wax na Euh, suuf si nu mu war a mel mu wax ne dee tànn ndey yi leen di jural seeni doom ndax sidit day royaat taxayyaroo li nutafikum fa innal irqa dassaas kon wax na it suuf si ñu war a ji jiw wi nu mu war a mel ndox mi mi ñuy suuxate gàncaxuk ruuxu nit mooy pas-pas pas-pas bu dëgër bu wér te dëgër ak jëf ju baax ak jikko yu baax ak aada yu baax loolu mooy ndox mi ñuy suuxate euh, mooy mooy ndox mi mu woo kon ki ñuy yar buñ ko tànnee ñaari waajur war nañ koo tàmmal cëg njaalbeenam rek bu tàmbalee xàmmee wax ju baax di wax lu baax di jëf lu baax di am aada yu baax di am jikko yu baax di ko moytuloo it safaanub yooyu mooy ndox mi war nañ ko yarit war nañ ko wutalit eh, ak ak ab jant jantub gàncaxug nit mooy xam-xam mooy làmp bi le mooy leeralal nit ki yoonu njub di ko xamal li mu war a def ak li mu warta def ni mu war a mel ak ni mu warta mel li baax ak li bon kon xam-xam boobu mooy jantam ngelawam nag mooy barab bi muy dundee barab bi mu nekk ak ñi muy jaxasool barab ba war a nekk barab bu sell ña mu jaxasool nekk ñu baax su ko defee ñu soril barab ba lépp luy yàq pas-pas ak lépp luy yàq am xel ak lépp luy yàq jikko euh, ñu euh, ñu fexe ba barab ba loola sori fa koy mu nekk barab bu sell boo xam ne dana fa a dund kon yii buñ ko bàyyee xel ci yar buñ ci yaree nit des na am yaakaar lool ci ne ay jikkoom dana dana rafet ndax yar bu bu bu antoo ci buñ ko misaal ci garab gi day daal di am ay reen yu dëgër te mooy pas-pas bu bu dëgër amit dat ab dat bu dëgër mooy diine am ay car yu ami xob war a am meññet su boobaa dana am ker guñ mën a toog te mooy dana amal njariñ dana mën a dana neex a jaxasool waaye dana am meññet te mooy dana mooy jikko ju rafet ju mën a jaxasoog nit ñi ak njariñ lu muy jariñ nit ñi ak di moytu seeni lor kon suñ ko yaree yar bu baax rek mu daal nekk gàncax day daal di mel ni garab day màgg toll na mu war a tollu am ker am meññet mu neex su ko defee daal nekk ku ku ku baax kon yii mooy yi nga xam ne lislaam bàyyi na ko xel ci yar su ko defee kon loolu yarkat yépp yi ne ci biir kër yi buñ ko bàyyee xel ak képp ku am rek aw sas ci yar mu bàyyi ko xel loolu dañ am yaakaar ci ne yar ba dana antu barab yi nga xam ne itam yar lañ baaxoo ak jàngale barab yi nga xam ne barab bi jàngukaay la ak barab bi yarukaay ñu gën a jox yitte yar ni ñu joxe yitte njàng ñu joxe noonu yar yitte yar baa nu ko raw ndax yar bi moo ëpp solo njàng mi moo tax mag ñi am na ci ñooñ bu ñu daa joxe seen doom dañuy wax kañ koy jox ne ko defal ñu ci ab yar aku akum jàng ak xam-xam bu amee luy des na na njàng ma des waaye yar bi moom bu mu des ndax yar bi mooy li ëpp solo ndax mooy tàggat nit ki ci pas-pas ak i jëf ak i melokaan te xam-xam bi loolu la war a jariñ kon yar boobu ñu joxaat ko yitte ñu bàyyi ci ay xel ay bàyyi ci xel ay mbir bi ci njëkk mooy ñiy jàngalee ko yar nga xam loolooy seen métier ñu doon ay nit ñu mat sëkk royukaay mat sëkk royukaay ci pas-pas mat sëkk royukaay ci ay waxiin ak jëfin mat sëkk royukaay itam ci jikko ju rafet mat sëkk royukaay ci xel mu ñor ta mat nga xam ne kon ku mel noonu lañu war a dénk njaboot ngir mu yar ko lañuy jàngal nit ki itam doon loo xam ne luy dëgëral pas-pasam lay war a doon doon lu koy wan lu koy xamal yoonu njub doon luy def ci moom jikko ju rafet doon loo xam ne itam day defar am xelam eh, di defar ay jikkoom nga xam ne kon lañuy jàng eh, ñu doon loo xam ne yépp da cay mën a jug day mën a juddoo ñu bàyyi ci xel su ko fee barab ba ñuy jàngee itam ñu aar ko sange ko ba lépp luy yàq am xel du fa am lu yàq jikko du fa am lu yàq itam pas-pas du fa am bu fee kon yooyu yëpp ñu ca bàyyee xel eh, ca barab ba ak nit ña su boobaa dañ jàpp ne kuñ fa yare dañ bàyyi ko fa ba yar ba sotti dana war a mën a nekk ku jub ku ku ku rafet jikko boo fekkoon bu fekkente ne taxawaay bi war ci biir kër gi ñu ngi koy def bi war ci barab bi jàngukaay yarukaay yi ña ngi koy def mbedd mi itam te mooy fépp fi nit kiy dund ñu fexe ba foofu itam ñu sellal ko ñu sellal ko ba lépp lu yàqum xel ñu ñu dàq ko fa lu yàq pas-pas ñu dàq ko fa lu yàq jikko ñu dàq ko fa ci melokaani nit ñi muy jaxasool ak li muy dégg ak di ko gis te li muy dégg ak gis bokk na ci li bàyyi ko ci jumtukaay yu xarala yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi dégtal nit ñi ay ay kàddu fu ñu toll itam ñu ngi wan nit ñi ay nataal fu ñu toll it ñi ngi jox nit ñi ay xalaat ñu bàyyi xel yooyu yépp ba loolee ñuy dégtal nit ñi di leen ko jottali ci ay xabaar ak wax ak di leen ko wan ci ay melo ay ay nataal ak di leen ko sox sol ci xalaat ak jumtukaay bu ñu ko mën a jaare moo xam ci eh, eh, jumtukaay yu xarale yépp rek ci xeeti joxe joxe ni xalaat yépp joxe ni xalaat yépp rek ñu fexe ba lépp lu ci kii ñu gës ñu fuglu ko bal lu yàqum xel du ca nekk yàq am xel mooy loo xam ne day jëmale xalaatu nit ki ci lu ñaaw ak lu bon ak lu rafetut lu yàq itam jikko du ca ne lu yàq pas-pas itam du ca nekk ñu aar ko yooyu yépp ba mu bañ a am ci li muy dégg ak a gis aka euh, aka jot ci ay xalaat loolu lépp ñu aar ci nit ki euh, su ko defee kon jàpp nañ ne juróom yi ñu waxoon ci li gàncax soxlawoo nit ki dana ko mën a am te bu ko amee kon yar ba dana mën a antu ñu gis ne kon fii boo ko xoolee ñu baree bari am nañ ci taxawaay yu ci war waajur yi am nañ ko ci ñi nga xam ne yar ak jàngale mooy seen yitte am nañ ko ci waaye ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci jotuli xabaar ak waney xew-xew ak di jox nit ñi ay xel di xelal nit ñi moo xam ñu koy def la ci ay rajo ak i télévision ak i journal moo xam ñu koy def la ci ay théâtre wala ci ay film moo xam ñu koy def ci leneen ak leneen la ñoo ñëpp kon am nañ taxawaay war nañoo am taxawaay ci yar ñu cay jeexital lañ jeexit ju baax mbaa ju safaanu ñoo ñëpp ko tam ñu leen di eh, fuglu di leen jubbanti bu ñu bu ñu defee lu nar a yàq ñu ñu fexe ba eh, aar loola fekk loola loolu tam baax na ci su ko defee itam ñi nga xam ne ñoo amee baat ci ay kilifa wala ay ñu amee euh, doole doole yi jàpp ci loxoom nit ne ko bul def ñooñu itam ñu taxaw temm ci lépp lu nar a yàq pas-pasi nit ñi mbaa seeni jikko mbaa seeni xel mbaa seeni xalaat ñu jëfandikoo seen doole jooje ba jàmmaarloo ak ñooñee ba loolee ñuy def du ñu ko def ndax lañuy def ak yàq lay doon te bu bu yàq nga ñëwee ñëpp lay laal takkoo na fitnatan laa tusibanna allazina zalamu xaas xaasa kon yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñoo yilif nit ñi ci diine mbaa ci aada ci àdduna euh, te am ka amee kàddu mbaa doole ju mën a aar fi nit kiy dundee ba lu koy yàq du fa am ñoo ñëpp kon ndekete am nañu taxawaay ci jàngale ak yar kon liggéey bu yaatu la boo xam ne ñu baree ci am wàll mu mel ne nag ci jamono jii euh, daam rek ñu néewa a néew ñu jàpp ne ñoom ñoo ko moom ñoo ca féete ñi sees ñu bari daal di bàyyi ñoom seen wàll loola mooy tax tool bi booy gàncax gi itam du mën a mucc ayib kon yépp laaj na kon ñu delloosiwaat ci xel bu baax euh, xalaataat ci te xam ne lu yitteel la lu yitteel la lool lu mat a taxaw kon tomb boobu loolu lañ ciy doyloo tombub ñaareel bi mooy ni ñuy natte nattuwaay bi ñuy nattee nit solos nit wàccuwaayu nit nga ngëneelul nit ak tedd nga am ni ñu koy nattee ci jamono jii ñu xoolaat ko bu baax te delloowaat ko ca nattuwaay bu wér ba waxoon nañ ci waxtaan wi weesu ne ñu bari seen nattuwaay mooy zaahir seen nattuwaay mooy alal seen nattuwaay mooy wàccuwaay bu nit am ci àdduna ci la ñuy nawee nit ci la koy yëkkatee ci la koy fonke ci la koy bëggee ci la koy toppe ci la koy bàyyee xel loolu tax na ñu bari rekk jublu ci lu leen di may alal ak lu leen di may darajay àdduna te dootuñ ca bañ dara ñi nga xam ne seen xel àggul ci ñor dañ cay dem ba àgg ci mu jaaral leen ñu jaay ci ñu ñàkk ci seen diine ngir am alal mbaa wàccuwaay ñàkk ci seen ngor euh, lor ci doomu aadama yi mën nañ cee dem sax ba lor ci ay bakkan ngir mën a am alal jooju nga xam ne jàpp nañ bu ko xasee am rek moom dañ leen daal di jéggal lépp lu ñu defati mbaa lépp lu ñu melati rek dañ leen koy daal di jéggal fu ñu mën a dem ñu teeru leen dalal leen jox leen wàccuwaay bu kawe ak nu ñu mën a mel bu ko fee ñooñee nag la nit ñi daal teg bët xool fañ jaar rek ñëpp bëgg faa jaar loolaa yàq diine yi nit ñi di yàq seen ngor di yàq seeni jikko su ko fekkoon nattuwaay boobu it ñu xam ne boobu nattuwaay moom du bu du boobu lislaam lislaam mi muy natte mooy ci ak jub ci ragal yàlla ci jëf ju baax jikko ju rafet waxoon nañ ko ci waxtaan wi weesu suñu boroom mi wax ci alquran ne yàlla yéen nit ñi yàlla moo leen bind def leen ngeen di ay góor ak jigéen def leen ngeen ay nit ñu wuutey xeet wuute ay couleur ak i làkk ak i melokaan waaye dafa bëgg ngeen wëlbati ko xamante te dimbalante ci lu baax waaye nag du ngeen gënante ci yooyu ñu wax noonu yéen a ngi gënantee ci ku gën a xam li yàlla ku gën a xam yàlla gën a xam li mu bëgg gën caa nekk gën koo mel kookaa ki gën kon ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla ki gën a xam yàlla gën a xam li yàlla bëgg gën koo jëf gën naa mel kooka mooy ka gën donte am amam bariwut teewut moom mooy ka gën fa yàlla te ka gën fa yàlla mooy ka gën kon ñu jàpp ne ko nattuwaay boobu mooy bi bi wér loolu it dañuy sëriñ bi jàngalaat ادع لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ko jàngale noonu la ko sëriñ bi jëfee yare ca noonu bi mu fekkee ñu bari di jox wàccuwaay nit ci melokaanu yaramam ci weexaayam benn nit ki doon tubaab maamu doon naar ñu jàpp ne kookaa féete kaw ki ko doonut dafa ñëw dàq lool ne falaysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su al fahmi ñuulaayu yaram du taxa naqarim xel du taxa euh, dof du tee itam mën a am cër bu rëy fa kanam suñu borom is akramul ibaadi indallahi aktharuhum taqwan bila shubaahi ndax nee na ki gën fa yàlla ki gën ci ki gën ci nit ñi fa yàlla mooy ka fa gën a ragal yàlla kon dàq na na tuwaay bee ñu nit ñi teg jamono indi ko indi bi nga xam ne mooy bi lislaam tëral feneen it mu fekkoon ñu bari di jox nit ñi wàccuwaay ci ay juddu mu ne waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fuddila la bintisaabihi liman qad yatala min jihatil ansaabi ummin wa abi fa fihima ijtahid ma taaddubi na nga xam ne liy wutale nit ñi ba tax ñuy gënante ci xam lay doon ak jëf ci xam-xam ak diine ci ñoom ñaar la nit di gëne ka muy gën waaye du ko gënee ci askanu askanu ci ndey mbaa ci baay kon na nga farlu ci xam ak jëfe te boole ci ay teggin bu ko defee nga mën a am ngëneel ak tedd nga ja nga xam ne mooy tax nga mën a euh, tiim keneen loolu it la wane ci jëfam jëfi boppam moom euh, bi mu ñëwee doon nit ku ñuul euh, def na jëf naa jëfa jëf bu féete kaw ñi nga xam ne ñoo meloon neneen te jàpp ne ñoo war a gën ba def lu mel noonu itam ci aw nitam kon nattuwaay boobu itam ñu di ko delloo si xam ne fii nit di gën a nit daal du ci alal ak darajay àdduna waaye mooy ci pas-pas ak jëf ju baax ak jikko ju rafet ak ngor ak diine ak lépp loo xam ne daal lu baax la euh, kon ci ku ca ëppale rek gënee na kam ëpple lu toll ni lam koo ëpple moo tax mu ne walla tatlubul karam bi xayri taqwa fa inna karam huwa taqwa wala tatlubul izzata min xayri al azizil muizz bu leen sàkku tedd nga mooy ak ak gën rek gën aku kawe bu leen ko sàkkoo ci lu dul ragal yàlla te gën ak tedd nga mooy ragal yàlla bu leen sàkku teraanga it ci ku dul yàlla mi nga xam ne mooy kiy terale euh, mooy bu leen ko sàkkoo ci lu dul yoon wi mu tëral rek ne mooy tax a am tedd nga kon tam nattuwaay yooyu itam ñu delloosiwaat xoolaat ko bu baax a baax te ñi nga xam ne ñooy royukaay yi nga xam ne fuñ fuñ euh, fuñ barab fa ñu kuñ fa yëkkati mbooloo mi yëkkati kooka ñu bu ko fee itam ña ñu yëkkati ak a fonk ah doon ña nga xam ne rek ñoo ko yeyoo loolu dana tax nit ñi itam gën a bàyyiwaat xel ci ni ñuy jàppee nit ak ni ñu koy fonke wàññi itam bëgg alal gu ëpp gi ak bëgg àdduna gi nga xam ne moom dem na ba yàq lu baree bari ci jikko yi bokk na ci matuwaay yi ñu war a jël itam mooy bàyyiwaat xel ci ni ñuy jëfandikoo jumtukaay yu xarala yu bees yi tubaab yi euh, xam-xam indi te muy loo xam daa def àdduna mu gëndaloo ñu mën a gis lépp luy xew fu ne di ko dégg di ko xam loola it ñu yar nit ñi ci ñu ko jëfandikoo ci luy jariñ luy defar ak luy indi jàmm te moytu di ko jëfandikoo ci luy lor nit ak luy yàq jikko ak luy yee na ak luy tasaare mbooloo ñu gën a saytuwaat bu baax tam jumtukaay yooyu euh, ak ni ñu koy jëfandikoo teel cee yar nit ci teg ko ci yoonu jëfandiku wiin wu jub loolu itam bokk na ci taxawaay yi nga xam mat nay def boo defee itam ñu gën a fonk liggéey fonk itam jëflan eh, dimbalante ndax ak ñàkk bokk na ci lu yàq jikko nit bu ñàkkee te desee gore su boobaa mën naa def lu dëppawut ak jikko ju rafet mbaa lu dëppawut ak ngor mbaa diine su ko lépp luy wàññi ak ñàkk dara jiituwu ca nangoo liggéey bu baax a baax ak it ñi am jot seen loxo jot seen ginnaaw bu baax a baax itam ñu nangoo tàllal seen loxo dimbalee ñi ñu tane kon fokk liggéey ak fonk dimbalente Eh, loolu itam mën naa wàññi bu baax a baax ñàkk gi te lu ñàkk gi gën a wàññiku jikko yi gën a rafet ci ña nga xam ne seen pas-pas daa daa doyadi ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax itam ñi nga xam ne ñooy néew doole néew doole yi rawatina ñi teel a ñàkk ay waajur ñu teel leen saytu taxawe ci ñoom taxawaayi waajur ci yor leen ak jàngal leen ak yar leen ak saytu leen ba tabax seeni jikko tabax seeni xel def leen ba nekk ay nit ñu mat ñoo xam ne ñàkk ga ñàkk waajur du feeñ ci ñoom loolu alquran mu ngi ci bàyyiloo xel wa yaxsha alladina law tarako min xalfihim zurriyatan diafan xaafu alayhim fa yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ñi nga xam ne dañoo am ay bokk yu génn àdduna bàyyi fi njaboot gu sew bàyyi te bàyyi leen fi nag ñoom ñuy dund bokk ñoom lañ bokk ak ñoom war a taxawee seen njaboot nañuy xalaat bu yàlla defoon safaan ba bu fekkoon ñoom ñoo dem bàyyi njaboot gu sew bàyyee ko ay bokk nañuy bëggee ñañ bàyyi eh, ci ay bokk taxawee njaboot gañ bàyyi ñoom it ñu def noonu ci ñii ñu leen bàyyee te xam ne suñu borom la soob mu defee noonu waaye bu ko soobul mën naa defee neneen te bu ëllëgee itam taxawaay yi ñuy def am na lu cay war ci ab saytoo saytooku fay kon ñu gën a bàyyi xel bu baax ñu mel noonu sëriñ bi moom joxe na ci mis bindub jëf wal tubashir biyal yataama dawaaman an sihim bi abaahum kulla xiini mu ne yow sunu boroom ñi nga xam ne ñépp ñoo di ay jirim ñàkki waajur nanga ma def ma taxawu leen féete leen fa seeni waajur féete ba defal leen lu seeni waajur mënul ci ñoom bañ fàtte ñàkk nga ñàkkoon ay waajur ñi amoon i waajur sax te dikk ci moom def na defal na leen lu gën la waajur ya mënoon ci ñoom rawatina ña ko amutoon kon nag boobu taxawaay itam ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax bokk na ci li nga xam ne mën naa dimbale Eh, ci defar jikko yu yàqu yi kon lii daal ay tomb la yu ñu jàpp ne buñ ci gënee bàyyi xel gën cee dimbalante mën naa defar lu baree bari ci yàqute yi nga xam ne moo am ci jikko yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 anna muhammada rasulullah ashhadu anna muhammada rasulullah الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه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 يا عباد الله أن من ذكر الله ذكره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مقتداه فوا أسفاه وقلة حيلتاه في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وفي الحديث أربع من الشقاوة جمود العين وقسوة القلب والحرص وطول الأمل وفيه أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تخالطه الظنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي يذكره بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون أما بعد فيا أيها الناس ما هذه الغفلة التي أنتم عليها عاكفون تسمعون المواعظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأمم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب وهم لنا ذائبون متقطعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت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 سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله akbar asalaamaaleykum.